déglu bu baax baax ngeen mëna matérialiser enfin seen doole ji ngeen di ñàkk mu man leen a jariñ damay dellu ci fi nga xamni fi la nekk muy Amérique nga xamni moy dëkk bi ëpp doole ci aduna bi dëkk bi ëpp doole ci aduna bi moy Amérique sénégalais yalla dogal bi ñuy ñëw Amérique dans les années début des années 60 ñofi jitu jiitu ñofi jitu ñoo afro jiitu ouest africain képp ku dëkk ci Afrique soowu jant sénégalais ñoo la jiitu fii même nigeria sénégalais ñoo leen fi jiitu fii ñuy wax New York fii ci Touba Harlem sénégalais biñ fi ñu fiy ñëw boobu ay gétaloon mën naa ne daanaka ay poftana fi nekkoon ñu nekk fi am jom lool nag nangoo liggéey bëgg seen bopp dem ba tey valoriser quartier vidéo yi nekk ville ville exemple yi ci ci ville yi nga xam ne noir américain yi daan nañ fa dëkk tey sénégalais yi moomoon ko mais so gisee manam manque de réussite totale bi fo waroon am amu fa à cause grâce à à cause de tarikhay tarikhay motax sénégalais yi disloqué wu moo sénégalais yi divisé wu ci sen biir li ci li ma ci mëna findel moy mooy bu ñu amee problème sénégalais yi ci bitim rew état rek lañuy wax deug la état amna ci part de responsabilité mais état ñun ñoy état d'abord ñun lan lañuy mëna def ba nek étatique ñun ci suñu biir ñu organiser état ñun en tant que sénégalais bokk ndey bokk baay bokk ay maam xam fu ñu jóge xam suñu ay valeur mais ñu ngi perte suñu temps ci ay concurrence ci ay daayira ñaata doomu aadama la commencé Cotonou ba New York sénégalais yi ñaata doomu milliards la ñu dajale ñaata milliards la ñu dajale def ko ci ay mallette yóbbu ko ci ay dëkk këri sëriñ jox leen ko ñoo xam ne ñoom ñu ngi ngeek ay milliards ci seeni compte ñoom fi ñu nekk ci dëkk yi ñu nekk ñu ngi loué di taqale ñii ay tailleur lañu ñii ay marchand ambulant lañu ñii dañuy jaay ñii ay commerçant lañu te mënuñoo lijjanti seen bopp mënuñu am benn financière bi am mënuñoo àndandoo déggoo créer ay entreprise pour seen jataay yooyu noonu seen njaboot yi ci ville yooyu ñu nekk ñaata milliards lañu dajale ci ay màggal yu ñuy organisé ay gammo ay cant ay appel yoo xam ni amul bopp amul génn lu ñu liggéey def ko ci ñaata problème lañuy ñuy jànkonteel ci dëkk yi ñu nekk est-ce que sëriñ si wala tarixa yi mës nañoo intervenir man nee association ouest africain yi ci àdduna bi yu Sénégal laa ci gën a yërëm yu Sénégal les présidents association nit ku ñuul bu Sénégal laa ci gën a yërëm bitim réew parce que président daayira yi voleel nañu yéen la vedette mënuñoo réussir lenn ci seen association yi à cause de daayira yi damay dellu soit fii ci New York nga xam ne moom mooy daj dëpp gi fi bo ñëwee murid yi dañuy dajale milliard wala 1 2 millions de dollars dem jënd ben kër Seigne Touba nee ñu ngi ci concurrence bu delluwaayal tidiane yi roy leen ci dem taxale amuñu doolé bi mais dañ koy jéem parce que ñi def nañ ko comme dañuy glorifier wu ñu dem taxale lijjanti ben 1 million de dollars wala 2 millions lijjanti luñ ci am dem engager ko ci ben morgueuse ci ben kër Alaaji Malick wala kër Cheikh Tidiane laayeen yi ñoom comme xam nañu. je suis abonné abonné.